asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ngeen dal ak jàmm ci xibaar yi diggi bëccëg yi bàyyeekoo QTV ak Q radio bëccëgub tey bi ngeen di si ànd ak Xadijatu Kole ñu seeti boppu xibaar yi. bataaxal bu ko si président Adama Barrow mu ngi xamle ne altine bi mu war a tombeek ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre atum 2021 bi ñu nekk dafa nekk bésub noppale mi maanaam bésub public holiday tamit altine buy tombeek ñetti fan si weeru janvier atum 2022 bés boobu dina nekk bésub holiday ci biir réewub Gambie bi président Adama Barrow moom tànn na professeur Herbert Robinson pour mu doon naka vice chancellor bu EES bi sa university bu Gambie bi fan yi ñu nekk nag euh, gis nañ ne accident mu ngi gëna bari ci biir réewu Gambie bi te bakkan yu bari nag euh, mu ngi cee des lu toll nag si ñeenti nit ñoo ñàkk seeni bakkan ci accident bu mujjee am nag euh, sa kóotu kàddu gi bayeekoo nag si police biaro bi. mbokk yi looloo doonoon boppu xibaar yi ñu tax xel bu ñu dellu see yaatal xibaar yi fi jot am ci bëccëgub tey bi. si mujjanteelub décembre bi doon na bés yoo xam ne nag suñu mbokk christian yi dañ dee màggal li nga xam ne nag mooy bésub Christmas bi ak tamit ñu màggal ci at mu ees bi ci matuwaay googu président Adama Barrow muy njiitub réew bu réewu Gambie bi moom génnee na ab bataaxal dee xamal askan wi ne ñaar fukki fan ak juróom-ñaar si weerub décembre ci atub 2021 bi ñu nekk dafay doon bésub public holiday mi maanaam liggéeykat yi dañoo noppale ko tamit ñetti fan ci weerub janvier mu war a tombeek atub 2022 mi at bi ñu digmal si muy tombeeg bésub altine bi boobu dana bés boo xam ne nag a public holiday la bataaxal bu bayeekoo ci bureau njiitub réew mi mu ngi wax ne ci laame ñëpp njiitub réew mi président Adama Barrow am na mbégte ak kontante pour xamal askan wi ne altine ñaar fukki fan ak juróom-ñaar si weerub décembre atub 2021 doon na bésub public holiday tamit beneen altine bi muy tombeeg weerub janvier ñetti fanam si atub 2022 boobu doon na bés boo xam ne nag bésu public holiday la wóor naka bi réewu Gambie yëpp holiday bi nag jël nañ ko ci màggalub christianisme ni bésub christmas bi ak itamit at mu bees bu ñoo màggal pour dugg nag ci atub 2022 président Adama Barrow moom jël na matuwaay bi mu ne ci làmmeñub njobootam gi ak nguurub Gambie bi mu ngi ñaanal ñi nga xam ne naka ñooy suñ mbokk christian yi pour naka ñu am màggal màggalub christmas bi si jàmm tamit naka di ñaanal mbokk christian yi ak Gambie yëpp di leen ñaanal ne at mu ees bi ñu dugg ci si jàmm yàlla yokk xéewal yi tamit naka yokk jàmm ci biir réew mi ba tey ci xibaar yu bayeekoo ci state house di bureau njiitub réew mi président Adama Barrow mu ngi xamal askan bi ne njiitub réew mi président Adama baro ci dooleem tànn na ku ñu naan professeur Herbert Robinson pour mu doon naka vice chancellor bu es sa university bu Gambia bi bataaxal bi nag mu ngi bayeekoo ci ab press release boo xam ne nag mu ngi bayeekoo ci bureau njiitub réew mi. balaa ñu ko doon tànn pour mu doon naka ab vice chancellor professeur Robinson moom doonoon na naka directeur ci wàllub xam-xam gi a kiit gestu gi bu ñëwee tamit si wàllub njàngale bi ci banqaas bu ñu naan African Capacity Building Foundation moom doon na koo xam ne naka dafa xarañ torop te naka doon na ndaw gu fi toogal banqaas bu ñu naan African Union te seen banqaas bi naka nekk sa Zimbabwe ba tey kilifa gi naka am na ñaar fukki atub xam-xam jëmale ko naka ci wàllub liggéeyam jox nañ ko ko ndax naka mu ngi doon liggéey ci banxaasu United Nations bi ak International Consultation professeur Habat doon na koo xam ne nag si dëkku Banjul bi la juddoo te nag dem na si buntu jàngekaay bu ñu naan Saint Augustine High School ak Gambia High School ba mu nar kappale njàngu ko goo xam ne nag mu ngi fa doon def ci atum 1985 dem na nag di liggéey ci banxas bi seetu wàllub gëstu garab gi muy Medical Research Council balaa moo doon dem nag ci university bu nekk sa United Kingdom pour yokk xam-xamam jëmale ko nag ci mbirub liggéeyam gi si atum 1995 moom doon am na master's degree si njàng bu ñu naan infrastructure planning degree. loolu nag mu ko amee si ab university bu nekk sa Germany ba bayee ko foofu nag dem na yokkuwaat xam-xam mu am nag PhD si njàng bu ñu naan infrastructure economics mu defee ko nag ci buntu jàngikaay bu ñu naan South Bank University mu nekk sa dëkkub United Kingdom bi xewoon nag si atum 2001. professeur Pierre Gomes moom tànnoon nañ ko pour mu doon vice chancellor bi si weerub septembre ci at bi ñu nekk te si jamono ji nag teg nañ ko ci place ku fa nekkoon muy wuyoo nag si professeur Fajir Mohamed Ajun Ajun moom jëloon na toogu bi si atub 2016. professeur Habat Robinson moom liggéey gu mu war a def as vice chancellor sa university bu Gambia bi mu ngi war a commencé nag si weerub January si atub 2022 bi ñu digmal si. ëmpale wuñ na nag yoon yi dañu am luwa ak sarta waaye nag mel na ni ci biir réewu Gambie bi ñu bari nag duñ ko dee bàyyi xel tamit am na ci ñenn ñoo xam ne nag ñu ngi joxoñ baaraam kilifa yi di wax ne nag ñoom ñoo fullaalu luwa ak sarta yoo xam ne nag ñu ko teg ci kaw yoon yi te loolu tax na nag ñu bari dee si ñàkk seen bakkan te loolu tamit moo sababu nag accident bu am sa kootu ci fan yi ñu génn ba ñeent bakkan rot police piaro bi naka lu ko sabab mooy ne naka driver bi daf doon daw ak doole mënatu doon a contrôle naka break bi. ñu bari nag ñu ngi laam-laame di wax ne accident yu am ci yoon yi mu ngi gën a bari at mu jot te nag lu ko dee sababu mooy ne nag askan wi duñ dee bàyyi xel lu waa ak sarta yoo xam ne nag yooyu la teg ci yoon wi accident bu mujj am ci fan yi surtout ma bu nekk di wër ci buntu xaralay doon na accident boo xam ne nag mu ngi amee ci yoon bu ñu naan Baatin Haydin Highway te nag ñeent bakkan ñoo sa rot am na ci beneen boo xam ne tamit mu ngi nekkee ci yoon bu bàyyeekoo foo ñu di dem nag sa kiyang sa foofu nag wax nañ ne lu toll si ñaari bakkan ñoo fa kilifa yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk di liggéey ci bànqaasu police yi ñoom nag ñu ngi continuer di dëgëral nag satte yoo xam ne ñu ngi ko tëral ci wàllub yoon yi pour gis ne nag wàññi nañ accident yu dee am ci yoon yi si jamono ji nga xam ne nag dugg nañ ci weerub dixième bi xam ne nag trafic bi dafay bloc mi maanaam mbirub dem dikk bi dafay jafe tax na nag Lamine Ndiaye di police PRO bi moom nag mu ne mu ngee ñaax askan wi pour ñu bàyyi xel nag nu ñoo jëfandikoo yoon yi mu continué di wax ne accident yoo xam ne nag ñoo jot a am ñu ngi def nag ab gëstu pour xool nag lan moo ko sababu mu ne waaye nag gëstu yi bare yu ñu def gis nañ ne nag daw bu baax moo ko dee sababu mu ne looloo tax nag Gambia Police Force ñoom si jamono ji ñu ngi yee askan wi nag pour ñu bàyyi xel ci daw yu am doole yoo xam ne nag ñu ngi koy def ci yoon wi surtout ma nag bu fekkee ne trafic bi mu ngi bloc mu ko ne di wax ne tamit ñoom lenn lu ñu bëgg a def mooy ñu yokk police yi nag si yoon wi. Njaay mu continué di wax ne accident bu amoon ci fan yi ñu génn te mu xewee woon nag ci dëkk Kooti gi ab private véhicule moom moo laalante ak ab taxi. mu continué di wax ne accident yu dee am naka si jamono ji ñoom ñu ngi ko bàyyi xel torop tamit naka ñu ngi ko naqarlu waaye naka ñu ngi yëkkati ab gestu jëmale ko naka ci mbir mi mu continué di wax ne tamit ñeenti bakkan yoo xam ne naka ñoo sa rot ñoom naka dañ koy déggal mu koonte di wax ne tamit mbirum daw bu baax bi ci yoon bi nañ ko bàyyi xel njaay naka doon ndar keppal kàddoo mu ne mu ngi ñax askan wi pour naka bu ñoo daw ci yoon wi nañ def ndànk ànd ak dal tamit naka ñi bàyyi xel sart ak luwaa yoo xam ne naka ñu ngi ko tëral ci yoon wi ci beneen boor bi police piaro bi muy wuyo si Lamine Ndiaye moom naka xamal nañu xew-xew goo xam ne naka amoon na Salamine Babelon ñu wax ne naka xale bu góor bu toll si fukki at moo jam feteel xale bu jigéen bu toll si fukki at ak ñaar mu ne ba ñu defee seen gestu gi gis nañ ne nag rëbbkat bu war a toll si juróom-ñaar fukki at ak ñett kooku nag moom moom feteel googu te si jamono joo xam ne nag mbir baa ngi doon xew kooku génnoon ne nag pour dem doxi lu aju ci wàllum njulam gi mu bàyyi nag raydaam ak feteelam gi ci kër gi mu ne nag ci la xale bu góor gi jël feteel boobu commencé nag di ko feteel ci biir loolu nag ci la laal xale bu jigéen bu toll si fukki at ak ñaar kooku nag far génnee ci àdduna banxaas bi seeti wàllu wér-gu-yaram bi ci biir réewum Gambie bi ci àllarba bi ñoom ñoo lëkkaloo ak seen àndandoo yi pour gis nag dëggal nañ ab sarta goo xam ne nag ñu ngi ko fas yéene tëral jëmale ko ci seen wàllu liggéey bi matuwaay gi nag ñu jël ko pour gis ne rek sarta googu liggéeyee nañ ko bayee ko nag si atub 2021 dem ba si atub 2030 seen waxtaan bi nag ñu ngi ko teq ci lëkkaloo pour gis nag dooleel nañ lu aju ci wàllu wér-gu-yaram bi ci biir réewum Gambie bi National Health bi muy maanaam sarta goo xam ne nag bind nañ ko pour commencer ko nag ci atub 2020 doon na mbir boo xam ne nag dañ ko jël pour gis nag indi nañ ab yokkute ci seen wàllub liggéey bi ndax ñu ne nag sarta buñ doon liggéeyee si jamono ji nag boobu dafa expire maanaam datam dafa jeex loolu tax na nag ñu bind US yi pour gis ne matuwaay bi nag continuer nañ ko jëmale ko nag ci seen wàllub liggéey ba tey national health sector policy bi mu mi maanaam sarta goo xam ne nag ñu ngi ko tëral jëmale ko ci wàllub liggéeyu wérgu yaram bu nekk ci biir bi am nañ yaakaar ne nag buñ ko fësalee banxaasu wér-gu-yaram bi nag nañ am buntu pour gis ne nag bàyyi nañ xeel wala sax saafaraal jafe-jafe goo xam ne nag askan waa koy jànkuwanteel bu ñëwee ci wàllu wér-gu-yaram bi tamit nag jafe-jafe googu nañ ko wecci nag ak mbirub yokkute ci wàllu wér-gu-yaram bi ginnaaw doon gaaral kàddoom si ndaje bi ministre bu ñu dénk wàllu biir yaram bi moom wax na ne am na yaakaar ne naka sata yi nii buñ ko fësalee dina doon mbir boo xam ne dafay isi ab yokkute bu baax ci wàllu biir yaram bi mu ko ne di wax ne tamit buñ ko doolelee dina jàppale naka liggéeykat yi pour naka ñu wàññi jafe-jafe gu askan bi di jànkuwanteel ci seen wàllu wér gu bi tamit naka ne isi ab weccite ci wàllu dëkkuwaay yi ak mbiru wecciteeb jaww ji Mouhamed Lamine Diété moom mu doon permanent secretary si ministre bi saytu wàllu wér yaram bi ginnaaw da gaaral kàddoo mu ne mu ngi jaajëfal seenub àndandoo yi te naka am na yaakaar ne ndaje goo xam ne naka def nañ ko ak satta gu ñu nekk di waxtaanee dina isi ab yokkute bu ñu si jógee. Jibril Jaaju moom mu doon directeur ci banxaasu planning and information si ministre bi saytu wàllu wér-gu-yaram bi ginnaaw doon gaaral kàddoo mu ne si jamono ji ñu ngi naka ci commencement bi te naka am na yaakaar ne bu ñu lëkkaloo wecci wante xalaat banxaas bi naka na doon banxaas bi am doole docteur Melvin moom mu doon ab consultant moom wax na ne si jamono ji nag ñoom lu ñu am yaakaar mooy naka ñu fesal sarta bi liggéeyee ci pour gis ne naka am nañ ab yokkute ci seen wàllub liggéey bi mu konte di wax ne tamit lépp loo xam ne rek génn na ci mi ab jafe ñoom dinañ fexe pour gis ne saafaraal nañ ko ci seenu boor mu ne si jamono ji naka lu ñu soxla mooy ñoom ñu lëkkaloo gis ne naka bu ñu paree ci seenub liggéey gi ni maanaam sarta gu ñu tëral ñu fesal ko ci num gën a gaawee commencé liggéey bi ci num gën a gaawee Sam Wills moom mu doon ko fa teewal banxaas bu ñu naan World Bank Tax Team Leader moom it gaaral na fa kàddoom jaarale ko naka si Zoom di rafetlu naka matuwaay goo xam ne kilifa yi jël nañ ko jëmale ko naka ci liggéey bu rafet bii Makawassi moom mu fa teewal docteur Desti Teroni ginnaaw doon gaaral kàddoom mu ne dafa am solo naka kilifa yi lëkkaloo àndandoo pour gis naka isi nañ ab yokkute ci wàllu wér-gu-yaram bi mu ne lii naka doon na mbir boo xam ne moom mu ngi koo rafetlu ndax matuwaay la boo xam ne dina leen jàppale ci mbir yi ñëw ëllëg bu ñëwee naka si wàllu wér-gu-yaram bi mu ne Covid 19 bi doon na misaal goo xam ne naka ñëpp ko war a gestu mu ne kon nag bu ñoo jël matuwaay yi nii pour isi naka ab yokkute moom daf koo rafetlu. si jamono ji nag sarta US yi bu fekkee ne nag kilifa yi wécci wante nañ ci xalaat am na ci nag ab nangutoo nañ ko yóbbu nag si banxaas wii si wàllu wér-gu-yaram bi ñu gis ne nag fësal nañ ko pour gis na nag liggéeyee nañ ko ci seen wàllu liggéey bi matuwaay bi ñu jël ko rek pour gis ne am nañ sarta yoo xam ne nag yooyu la ñoo doxalee jëmale ko ci seen wàllu liggéey bi ci at yi ñuy digmal si traffic lights nag muy làmp yu dee nekk ci yoon yi doon mbir boo xam ne nag dafa am solo mu tax nag kilifa yi taxawal ko fa waaye nag ñu bari ñoo xam ne nag ñu ngi dem ak dikk ci yoon yi maanaam borom moto yi duñu ko dee bàyyi xel bu baax loolu nag tax na suñu ndaw bi nag mu génn pour dem waxtaan ak National Road Authority si muy kilifa yoo xam ne nag ñoo nekk di bàyyi xel lu aju ci wàllub yoon yi pour xam naka lan moo tax traffic lights yi ñu ngi ci yoon yi ak itamit lu sababu nag yu bari nekkuñ di dox. banxaas bu nekk di saytu lu aju naka ci wàllub yoon yi ñoom naka def nañ traffic light si si yoon yu bari yoo xam ne naka ñu ngi ci dëkkub Kombo gi waaye naka terewul askan waa ngi joytu di wax ne naka doyul ndax naka light yooyu nekkuñ naka di dox si waxtaan bu ñu am ak directeur général bu National Road Authority bi muy wuyoo ci Mamadou Senghor moom xamal nañu njëriñu traffic light bi ak lu bu nekk naka Sabatin Harding Highway mu ne naka traffic light boobu noonu mu ngee dox dafay won naka ñu nekk ci yoon wi waxtu bu ñoo taxaw ak waxtu bu moo jàll ndax naka yoon la boo xam ne moo tey dañooy dajee foofu mu ko di wax ne tamit lu tax naka ñu taxawal police si yoon wi mooy naka pour ñu won askan wi nu ñoo jaaree seeni bopp naka ci yoon wi ak it matuwaay ñu war a jël naka pour gis ne dañoo aar naka lu aju ci wàllu accident ba tey rek mu continuer di wax ne mu ne boo bàyyeekoo naka ci yoonu Banjul bi di ñëw dangaa gis ne naka foofu trafic bi daf dee block mu ne waaye naka trafic police yu fa nekk ñoom naka nañ jàppale ñu nekkee si boor yooyu pour naka ñu gis ne ñëpp ñoo xam ne naka ñu ngay jaaree ci yoon woobu topp nañ naka sattaab yoon wi directeur général Senghor ba tey rek mu continuer di wax ne mu ne mu ngi xamal askan wi ne naka traffic lights si ñu bari naka si jamono ji nekkuñ di dox te lu ko sababu mooy ne naka moto yi ñoo ko dee tampon duñ ko dee maintenance mu continué di wax ne mu ne am na benn boo xam ne naka mu ngi si yoonub jaabang bi mu ne waaye naka boobu dafa am naka jafe-jafe mu ne waaye si jamono ji ñu ngi fexe naka pour gis defaraat nañ ko ba tey mu continué di wax ne si yoonu Batin Hadin highway bi ñu ngi fa fas yéene defaraat naka beneen traffic light waaye naka koppar goo xam ne naka boobu lañ si war a dugal boobu moo am naka ab yéex-yéex mu ne waaye si jamono ji ñoom ñu ngi lëkkaloo ak police yi pour gis ne naka am nañ ay checkpoint ci yoon yi pour gis ne naka jafe-jafe goo xam ne askan waa koy jànkuwanteel ci wàllub yoon yi nag ñu jénnee ko Anthony Keita moom mu doon senior operation and safety manager ci banxaasub National Road Authority bi ginnaaw doon gaaral kàddu mu ne moom nag banxaasam bi ñu ngi def seen kim tu lay kàttan pour gis ne aar nañ bakkanub askan wi ci yoon wi ba tey rek mu continuer di wax ne doomi aadama yi seenub doxalin ci yoon wi dañ ko war a bàyyi xel ndax naka moo leen di indil jafe-jafe ci seen wàllub liggéey bi mu ne mu ngi ñaax nit ñi surtout man ñoo xam ne naka ñoo dee drive ñu bàyyi xel naka lamp yi tamit naka misaal yoo xam ne mu ngi ko joxe ci yoon wi ginnaaw ba ñu doxantoo ci yoon yu bari gis nañ ne nag trafic light yoo xam ne ñu ngi ci yoon yi yu ci bari nag courant moo ko dee doxal kon naka bu fekkee ne courant dem na off mel na ne naka light yooyu noonu dañoo fay pour waxtaanee si jafe-jafe googu kilifa yoo xam ne naka ñoo nekk ci banqaas bi seetu wàllub yoon yi ñu ne ñoom naka ñu ngi bàyyi xel di def seen kéemtalaay kàttan tëral ay sarta yu ees pour gis ne naka light yooyu génnee nañ ko naka si nawet yóbbu ko naka ci mbirub sola ñu ne naka projet boobu dafa bokk naka ci OIC summit projet yu ñu nekk di def ci biir réew mi te am na yaakaar ne naka ñëw ci at bi ñu digmal si mbokk yi bu ñu fàttale ko ci atum 2016 groupe Gambie bi waxoon nañ ne dañu aaye askan wi nag pour ñuy tuux ci biir mbooloo ci matuwaay googu nag directorate ci banqaas bi seetu wàll ñuy dooleel lu aju ci mbiru wér gu bi ak njàngub wér-gu-yaram bi nekk di liggéey ci ron ministre bu ñu dénk wàllu wér gu bi ci àllarba bi ñoom ñoo am ndaje jaarale ko seen diggante ak taskatu xibaar yi pour wan askan wi satta goo xam ne wala sax luwaa gu ees goo xam ne nag indi nañ ko pour gis nag tere nañ askan wi dox ci biir mbooloo matuwaay bi nag ñu ne dañ ko jël rek pour gis ne dëgëral nañ nag luwaa yoo xam ne yooyu lañ tëral pour wàññi mbiru toxu cigarette bi ci biir réewu Gambie bi goo xam ne nag kilifa yi def nañ ko jël nañ matuwaay bi nag ànd ci ak banqaas boo xam ne ñoo nekk di dooleel mbiru wérgu yaram bi ak njàngu wérgu yaram bi ñu ànd ci tamit ak kilifa yoo xam ne ñoo nekk di yëngu si mbiru wàññi toxub cigarette bi ci biir réew mi ëmpale buñ ne nag si at atum 2016 ñu bari nag wàññi woon nañ seen loxo ndax nag nguurub Gambie bi dañu génne woon luwaa di xamal askan wi ne pour ñu bàyyi naka di dox ci biir mbooloo wo tamit naka ci biir loolu génne woon nañ naka ay advertisement pour xamal askan wi ne loolu naka dañ koy tere matuwaay googu tamit tax na naka sponsor si maanaam kilifa yi naka ñu lëkkaloo ci ak seen àndandoo yi pour gis ne naka wàññi nañ jaayub cigarette bi ci biir réewu Gambie bi tamit naka yokk njëgub cigarette bi waaye naka terewul ba tey am na ci ñoo xam ne naka ñu ngi cee deewu na bu Thiam moom mu doon programme officer ci bànqaas goo xam ne nag ñoom ñoo dee bàyyi xel feebar yoo xam ne nag duñ ko dee waxtaanee ñu nekk di liggéey nag ci ron bànqaas bi dooleel mbiru wér bi ak ñàngo wér bi moom wax na ne nag matuwaay goo xam ne nag jël nañ ko pour nag xeex feebar yoo xam ne nag duñ ko dee waxtaanee lu bari si jamono ji nag mu ngi gën a bari ci biir réew mi te nag cigarette ci la bokk mu ne looloo tax nag ñoom ñu jël matuwaay bii nii pour gis ne génnee nañ sart bi nag ngir jàppale askan wi lu aju ci seen wàllu bi wér-gu-yaram nitaal ak advertisement yoo xam ne nag baaxaas bi saytu wàllu wér gu bi ñu ngi koo génnee dañ ko nekk di def rek pour yee askan wi jafe-jafe goo xam ne nag tuxub cigarette daf leen koy indil ci seen wàllu wér-gu-yaram bi mu ko ne di wax ne tamit ñu bari nag dañ ci war a bàyyi xel Sainabou Barry Thiam ba tey rek mu continue di wax ne mu ne nag waxuñ ne bu kenn tux cigarette waaye lu ñu wax mooy ne bul ko def nag ci biir mbooloo wala sax def ko ci biir office biir buntu jàngekaay kayi si baay si restaurant yi ci sa biir moto bi wala foo xam ne daal mbooloo mu fa mu dem naka ci wàllu wérgu yaram bi ak fépp foo xam ne rek yéen a ngi ëpp ñett ñu ngi laa ñaan naka bul fa tux te waxuñ naka mbirub cigarette waaye tamit chicha bi ñu ngi ko wax ak yeneen xeetub tux yi ba tey ci kàddoo mu ne ministre bi seetu wàllu wér-gu-yaram bi dañ dee am naka waxtaan ci tele yi ak si rajo yi pour xamal askan bi tamit fàttali leen lu waagoo xam ne naka ñu ngi ko tëral jëmale ko ci mbirub setaxub cigarette bi te lii naka dañ leen si dee yee mu ne matuwaay gi tamit ñu ngi ciy lëkkaloo ak kilifa yi ak Gambia Tourism Board pour gis na naka wàññi nañ ji dugal cigarette ci biir réew mi ak i tamit ñu ne dañ see waxtaan ak kilifa yoo xam ne naka ñoo jiite buntu jàngee kaay pour gis na jàppale nañ leen ci xeex gi ministre buy seetu wàllu wér-gu-yaram bi ñu ne ñu ngi ñaax askan bi pour naka ñu topp sarta goo xam ne naka ñu ko ko tëral jëmale ko ci wàllu tuxub cigarette bi pour gis ne naka booy tux cigarette na nga jóg naka dem foo xam ne yow kenn rek yaa fay nekk te nga bañ a tux naka ci biir mbooloo ndax naka tuux daf lay indil jafe-jafe ci sa wàllu wér-gu-yaram ak nit ñoo xam ne naka ñoo la jege. mbokk ba tey ci xibaar yi si jamono ji nga xam ne nag dugg nañ ci noor gi ngelaw li nag daf dee ëpp doole mii sabab nag kër yu bari di tàkk safara wala sax àll yi maanaam daal day sababu daal tàkk-tàkkub safara gi muy yomb ci biir loolu waxtaan nañ ak banqaas goo xam ne nag ñoo nekk di seeti wàllu fayib safara gi seen kilifa yu fa nekk pour waxtaan ak ñoom lu dee sababu nag mbirub safara gi ak matuwaay yu ñu nekk di jël pour gis na naka jàppale nañ ci askan wi ba ñu duggee ci noor gi ba tey boo bàyyi xel naka ci xibaar yu ñoo génn yu ci gën a bari naka ay kër yu dee tàkk daf ci dee bokk te lii naka mu ngi commencé si weerub octobre dem naka si digg weerub juin noorub ren bi naka commencé nañ ko te nit ñu bari si jamono ji ñu ngi joytu safara goo xam ne naka mu ngi leen di indil ab yàqute ñenn ñi di si ñàkk seen bagage yi ak seen mbirub dundu Pathé Djiba moom moo doon PRO ci bànqaasu fire and rescue service bi ci waxtaan bu ñu am ak moom mu ne mu ngi askan wi naka pour ñu bàyyi xel mbirub safara ak lii sababu naka tàkkub safara Djiba naka mu ne si jamono ji ëmpale wuñ ne naka ngelaw li mun naa tax naka tàkkub safara gi mu gaaw mu ne waaye naka mu ngi ñaax askan wi pour ñu bàyyi xel torop bàyyi xel naka seen mbirub dëkkuwaay yi seen néeg yi ñuy bàyyi xel seen xale yi ak i tamit ñuy bàyyi xel àll yoo xam ne naka ñoo leen jege waajur yi pour saa yu nekk rek ñuy bàyyi xel seen doom yi surtout naka bu ñu demee naka ci booru àll gi wala ñu téye naka loo xam ne mun na moo sababu tàkku safara mu ne ndax naka si jamono ji bu ta safara tàkkee naka yàqute gu bari mun na moo am mu ne tamit mu ngi ñaax naka ñi nga xam ne ñooy mag ñi maanaam ñoo xam ne daal dañ dee tox cigarette pour naka ñu bàyyi xel si fuñ dee sànni seen cigarette yi ndax loolu it mun naa sababu naka commencé tàkku safara mu ne nekk aar nga sa bakkanu morom. ba tey Pathé continué di wax ne ñoom seen banxaas bi ñu ngi lëkkaloo ak kilifa yi pour gis ne ar aar nañ bakkanub askan wi mu ne waaye naka ci biir loolu ñu ngi see wante jafe-jafe gu bari mu ne loolu naka terewul mu ngi xamal askan wi ne ñoom pare nañ naka pour aar seenub bakkan ak seenub jumtuwaay yi piaro bi mu ne mungee ngi ñaax askan wi pour kenn ku ci nekk nga jël nag nomba goo xam ne boobu ngay nag naka seenu bureau bi pour nag nga bàyyi ko xel bu fekkee ne nag am nga benn jafe-jafe ko nag ci mbirub tàkkub safara nga oole nag ci num gën a gaawee mu ne tamit mu ngi ñaax nag askan wi di leen fàttali ne ci noor la ñu nekk te tàkkub safara dafay yomb mu ne nag kon nañu jàppalante kenn ku ci nekk nag di bàyyi xel bu baax sa bopp ak sa morom ak tamit sa xale yi pour gis nag ñëpp sànniwante nañ loxo saafaral naka jafe-jafe goo xam ne ñu ngi koo jànkuwanteel ci wàllu yàquteg goo xam ne naka mu ngi bàyyeekoo ci mbirub tàkkub safara mbokk yi xibaar yi lañ leen fi amaloon ci bëccëgub tey bi yaatal ngeen di doon ànd ak Xadijatu Koli di leen jaajëfal ci ànd bi di ñaan yàlla mu meñ ñu ñeen doog jàmm jërë ngeen jëf ci topp bi wasalaam